Croix-Rouge ren dafa mobiliser lu toll si 333 volontaires waaw volontaires techniciens maanaam ay secouristes ak ñëpp si biir waaw pour deux jours yi démb au niveau de Cambérène on avait amené euh, lu toll si 109 volontaires dont 15 infirmiers à l'intérieur et 11 éléments RRF RRF boo ko déggee mooy ñi ngi def ñooy def rétablissement des liens dañuy gis ni lu mel ni ci appel nii wala ay gàmmu dafay bëri xale yoo xam ne dañuy dañuy réer seen parents de ce fait que ñun on va aller vers ses parents takk xale bracelet ñi nga xam ne jot ñu leen takk bracelet bu leen gisee ñu def tout ba ñu ñëw seen parents yi gisaat leen beneen bi tamit euh, on avait des postes médicalisés ñoo xam ne ay infirmiers ñoo fa nekkoon nga xam ne tous les cas qu'on avait à déceler yóbbu na leen pour ñu mu leen traité waaw lu ci mel noonu am na ay cas yi nga xam ne ñoo gën a fréquent au niveau de Cambérène foofu euh, lu ci ëpp ay safale la parce que dañuy teel a ñëw beneen bi doo nelaw bu baax aussi tamit tàngaay bi yëpp da leen jàpp voilà au niveau de Ngor yóbbu nañ fa lu mat quatre-vingt-quatre volontaires si biir quatre-vingt-quatre bi ak volontaires amoon na quinze infirmiers ak onze éléments RRF kon ni ñu defee foofu. su guddi gi tamit dem nañu fu ñuy wax Kër Cherif on est on était là-bas au nombre quatre euh, volontaires ay secouristes tey nag on a déployé lu mat euh, deux cent cinquante volontaires si biir Diamalaye a eu à deux cent cinquante volontaires donc quinze yoo xam ne infirmiers lañu sans compter RRF bokk ci ñoom ñoo ngi si biti ñoom ñooy xool xale yi ree fa la leen yóbbu bu ñu mën a xool ñuy def seen parents quoi